ab jéye moo am ca Saint-Louis foofa nag euh, bésu ba tey bii ci fajar daal lafa fa ab gaal suux ñu ne gaal boo xam ne nag ay xale yu góor yu doon bëgg a dem bitim réew ñoo ca nekkoon ñu ne nag am na euh, daal juróom benn nit yoo xam ne kon euh, for nañ seeni néew mu am ñeent yoo xam ne sooy nañ leen wante nag am na ñoo xam ne gisuñu leen waa sapeur pompier ñoo ngi doon wéy di amal ay seet ci géej gi ndax dinañ gis ñi nga xam ne kon dañoo réer Birame Souleye Diop démb nag juge d'instruction déglu na ko bañ ca jógee nag dañ kaa yóbbu kaso moom mi nga xam ne nag moom mooy administrateur général bu Pastef nekkit président bu groupe parlementaire Yewwi Askan Wi ñu ngi koy toppee nag euh, mbirum acte a compromettre la paix publique maanaam daal def loo xam ne mën na euh, indi kon ay euh, yëngu-yëngu mën na daal indi ay jafe-jafe ci kaaraange réew mi wante itam. ñàkkee kersa wala boo ko wax lu tegginewul jëmale ci njiitu euh, réew mi ci ab communiqué boo xam ne nag bésub tey bi waa groupe parlementaire bu yewi askan wi amal nañ ko ñoom nag ñu ngay sàkku ci daal ñu teggi ko euh, loxo moom seen naataango député boobu te sax ñu ne euh, justice bi daal day doxalee mbirum kumba am ndey ak kumba amul ndey épreuve bu examen BFM di brevet de fin d'études moyennes bésub tey bi nag tàmbale na ci Sénégal gi yëpp euh, lu toll nag wala boog lu jege cent quatre-vingt-dix mille ci ay candidats di ca dem kon ngir ut daal li nga xam ne moom mooy euh, diplôme BFM boobu nga xam ne kon moom moo leen di tax daal kon ba ñu mën a wéyale seen jàng ci enseignement secondaire supérieur bi jigéen ñi nag lañ nemmeeku ne kon ñoo ëpp ci yooyu la candidat ñu leen di ñaanal yàlla euh, may leen kon loolu nga xam ne ñu ngi koy wut lii la ñoo tey ci xibaar rafet seen teewlu dañ jox di ci ëllëg jàngeen jëf